maami nii loxo ba nu ma wayte ma xam ko. maami nii loxo ba nu ma wayte ma xam ko. maami nii loxo ba nu ma wayte ma xam ko. maami nii loxo ba nu ma wayte ma xam ko. akuma na batuma réer fa ma yam loo ma xaaj.